Euh, bisimilah chrétiens yi la wax ak mhm. képp kuy humain rek jóg nga ndax mathalul muminina fii tawadudihim mhm. wa tarahumihim ka masali jasadi xam nga bopp bu méttee ci yaram mhm. bët yëg ko su bët méttee tànk yëg ko su tànk méttee biir war koo yëg solidarité boobu ak euh, li nga xam ni synergie boobu mooy aljamaatu rahma wal firqatu azar ñëpp jóg nañu. sëñ Baal ma nga jox leen micro bi kan euh, soxna si soxna si nga jox leen ngeen nuyoo ngeen présenté rek waaw nga présenté ñi nga àndal itam. aousubillahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim ñun waa unité 21 ñoo ñëwoon fii tey taxaw ci Parcelles Assainies unité 21 ñëw ci ndimbal yi nga xam ne moom la ñuy joxe fii ci TFM mhm. eh, teewal fi unité 21 yëpp mhm. ñun ñi nga xam ne ñoo jëloon volontaire bi nag di ko def bokk na ci Adja Marème si mhm. ak man ma jigéen sàmb ak Adja Ndeye Marème Gueye ak Ndeye Ami Bari ñu ñoo jël suñu volontaire dugg ci unité bi rek topp nit ñëpp kenn ku nekk li nga am nga joxe ko te yàlla tax. ñu ngi massawu tamit ñi nga xam ne dañ cee ñàkk seen ay bakkan di leen jaal. te kenn yéenewu leen ko nag xëy na mbiru yàlla la bu yàlla suñu borom nag moom mooy def lu ko neex mu def te lu mu def rek dëppoo na nag ak bëgg-bëggu jaam yi ak bànneexu jaam yi. Mm. waaye kenn ku ne dina ci fësal yéeneem ak. Euh, kiyam pour dimbali waate yéene bi nag ëpp na fii mhm. bu ñu sañoon tey jii bu ñu fi taxawee bu ñu génnee li ñuy génne rek dañuy xam ne unité kenn ku nekk participé na ñun nag démb rek la ñu xëy lijjanti yàggul dara ñu ñëw pour bañ jour bi raw ñu wala affaire yi ñu arrêté ko te duñ ci duñ ci participé loolu moo waral ñu ñëw nii tey taxaw mhm. indi nañ fi nag fukki saaku yére fukki saako yére waaw ak cent quinze mille francs ak ay dàll ak mm. ay ay ay ay bagages. mi ngi ci biti waaw ñu xeeb ko lool nag. fukki saako yére ak cent quinze mille cent quinze mille waa parcelle unité dajale joxe ay yére. waaw ñu joxe xaalis. kon ñu ngi nuyu waa parcelle yëpp yàlla nag yàlla gën leen a barkeel. ñoo ngi sant nag waa parcelle yëpp. ndax wax dëgg yàlla kër gu ñu dugg. Mm-hmm. joxe nga sa participation. Mm-hmm. ñëpp a participer. Mm-hmm. ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf te lii yàlla na fi gëj. ci barke Moustapha. kontaan nañu trop kon ci dikk bi ñu dikk fii ci Youssou nduur rek. Mhm. dafa sedd suñu xol. ñu ngi ñaanal Youssou Ndour. Mhm. ak ñi nga xam ne ñoom fi liggéey yëpp. Mhm. yàlla na ne yàlla defal jàmm. ci barke Cheikh Ahmed Tidiane. barke El Hadj Malick yàlla na ne yàlla suturaal seen place bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu law ci kàttanu yàlla jëmi sëñ Babacar Sy. auzu billaahi mina seytaan rajiim mm-hmm. man su ma duggee fii rek ba gis bagaas yi rek sama xol dafa tooy ñoo ngi leen ñaanal yàlla fépp dërëm bu ci waay def yàlla na la ko yàlla remplacer ak million ndaxte lii dafa metti kenn ku ne boo ko xoolee xam ne dafa metti mm-hmm. ñoo ngi ñaan yal na yàlla dolli xéewal defal ñu ko defal ko mbooloo mi jullit di ñaanal borom kër gi tamit ak yéen ñii ñu fiy liggéey yow dama la sopp ndax Seydina Muhammad te man ku topp ku ku topp ku sopp Seydina Muhammad rek topp naa ko ndax fu ñu ko yëngoo fu ñu ko tuddee rek mm. sama xol fees yàlla na yàlla fay yiw defal ñu ko defal ko mbooloo mi jullit ci kàntanu yàlla jërëjëf ah, bari yaa boy bu ngeen génnee bu ngeen génnee ñu jox leen sama numéro Jeynaba Jeynaba Jeynaba Seydou Ba jox leen sama numéro waaw kay ñoom yàlla na yàlla fay leen yàlla yokku leen dëgëral euh, bég nañ bu baax a baax ci darajay Seydina Muhammad euh, kaay jël sec bi bala ma ko réeral ah, ah, jëlal jëlal sa juróomi juróomi million la ak beneen million muy juróom benn million jox naa la ko dégg nga tabaarakallaahu eh, mbokk yi eh, ñu ngi nuyu mboolem koo xam ni eh, sa xel mi ngi fii am nga yéene Cheikh tabaarakallaahu gis nga gis nga nit ñi gis nga nit ñu ngi ñëw rek ñu ngi ñëw Cheikh mais mais mais Serigne Cheikh jamono yi yëg nga yit Sénégal Sénégal xol bi ne ci moom mbaax gi ne ci ñoom ak solidarité bi nga xam ni sénégalais yi donte yéex nañ ko def ñu tàmbali nañ ko nag jamono yi ñu ne. am na solo Pape euh, jàmbat tilim ji nag euh, li sama turandoo xoon si Ahmed Tidiane si almaktum. Mhm. Eh, nee na jàmbat tilim ji wuti saaboo ko gën te ñi may fete. jàmbat tilim ji. wuti saabu moo ko gën te ñi may fete. allahu akbar xam nga le président Macky Sall bi mu wàccee ci aéroport bi. Mhm. dafa ñëw tëgg ab tukki. Mhm. ci ñëw ngir nimeeku réew mi mhm. ndax dañuy ida kaana rabbul bayti mhm. bi dofin yadribu mhm. fala lawma ala sibiyan bi raqsin yalabu borom kër su juleen dem di tëgg gone yi ci kër ga duñu rus a fecc duñu rus a fecc moom président de la république mu xam ni euh, kilifa diine yi tàmbali nañ def ju mag jooju moom tam mu daggatu tukkeem ñëw waaye discours mu wax moo joolee réew mi bàyyi naa sénat bi ba jëmi jamono teg naa ko nële milliards yi ñu ci waroon def en tant que institution xëpp naa ko ci mbënn mi loolu ragal naa ni lu am solo la moo tax it borom kër gi Youssou Ndour damaa gis ku ñëw rek ko. Mhm. dafa nekk nitu solidarité. Mhm. Youssou ku ma xam la yàgg naa ko xam trop. Mhm. yàgg toog ak moom waaye nit ku bëgg solidarité la nit ko xam solidarité moo xam moo tax it télé yëpp ubbi ñu ku ne wax nga waaye TFM joué na un rôle déterminant. ku bëgg solidarité la ku ci yàq nekk la alxaaji Youssou yal na ko yàlla yokk dëgëral soxna yi nu leen di nuyu bu baax a baax tabaarakallaahu euh, yéen itam jox leen jox leen jox leen micro bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam tur la. di nuyu bu baax Asetu Fall. Fall Fall. Uh-huh. maa ngi doyee Cambérène 1. Cambérène maa ngi indi ay ordre zewel ak ay ngi fële. mi ngi ci biti ay ordre zewel ak ay bagages. ak ay tisi. ay tisi yooyu mhm, mhm. ci teg waaw. beccor ga Marème Diakhaté moo joxe Marème Diakhaté moo joxe 1000 francs maa ci teg 1000 francs yow it nga teg 1000 francs waaw orzevel yaa ngi ci biti orzevel yaa ngi ci biti Pape Anne nag li nga wax ci Seydina Mohamed moo ma daaneel keroog xamu fu ma tollu daal démb damaa jóg rek waaj ndeysaan jërëjëf soxna si jërëjëf jërëjëf kontaan nañu baax baax yal na yàlla gën la barkeel yàlla euh, sa doom jooju yàlla def ko mag mu am ñam ci barke Seydina Mouhamed ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Pape Ande waa di waa TFM jërëjëf di nuyu borom kër gi mhm. mën na mi nag ñu ngi masaw ñi nga tur bi la day tabu mbay mbay mbay Pikine tali bu mag mhm. Aziz Mbay nag sama cousin la Moulaye Abdoul Aziz waaw Abdoul Aziz menn mhm. léegi maa ngi eh, ñi ngi masaw ñi nga xamee ni ci mbënd mi lañu gaa génn àdduna ak ñi nga xam ne seen i bagage daf fi yàqu ak seen i ñu ngi leen ma masaw daal ñun nag Pikine la ñuy dañu indi woon ay sa valise ak mbuusi yére mhm. ak ay sac mhm. pour dimbalee ko doomu aadama yi mhm. pour dimbalee ko doomu aada yi ma de may léegi sama yaay moom jóge woon parcelle indi may bagage indi ko suñu kër ak suñu benn sama benn dëkkandoo looti gay kii yaayam fanjaay ba mu déggee loolu xëy indi ay xëy indi ay bagage ñëw ni ma vraiment ba ba léegi maa ngi jooy bi mën na mi ñëwee ba léegi mhm. maa ngi jooy aw ma ku ma ko yóbbu sama doom laa waxoon mu ne dafa rus ma ma yaa ngi dem àndal ak moom nga yow joxaaleel ma ko samay bagage léegi nag bagage yaa ngi ci biti bagage yaa ngi ci biti jërë ngeen jëf indi ko jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf lii dañ cee teg ñaata la xeeb man musumaa ñëw télé musumaa taxaw rajo mbënd mii moom a tax a jóg wallaay wallaay ñëpp a yëngu ñëpp a yëngu ñëpp a yëngu ñaata la ñeenti junni waaw kay ñeenti junni ak ñeenti téeméer ah yéen yéen ko participé boole ko bagage yooyu ci biti yéen yéen a dëkk fan Pikine Tali bu mag euh, sunu yooyu it euh, sunu yaay yi leen yónni it ñoom itam ak yéen ñi participé mhm. euh, yàlla yàlla yokk leen dëgëral léegi sama biir kër dama fa am association. biir kër ga c'est en mai. waaw bi ñu ñëwee. Mhm. ma wax leen ko. Mhm. ñu metti lu ko lool ni ma bu neexee yàlla da nga jàmp ni pour dem xale yi ñu ngi wër ci koñ bi pour mën a euh, dajale. dajale bu ñu dajalee bu neexee yàlla. dinaa yónni mami mu indi ko. incha allah kontaan nañu nag mami doxal mami da ngay kii. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di nuyu waa TFM. jërëjëf di nuyu waa Pikine fi ma jógee. man ak sama yaay moomu mhm. lii amee mu ngi may yónni mais mënuma mosuma ñëw télé. Mhm. moo taxoon démb na bu ñu dajee fee si suñu affaire jigéen yi. Mhm. ne toog day ne day ñëw mën a ko ñu ànd. Mhm. sama yaay yebal ma. laaj tamit waa kër ga yëpp ak suñu dëkkandoo yi ñoom tamit ñëpp jàpp ci mhm. góor ak jigéen am na sax ku ma dab jox ma 350 ñu jox ma 500 ay moustiquaires waaw indi mhm. yu mag mhm. ak saag bu mag a mag yëpp daal pour jàppale ko jërëjëf jërëjëf ñoo ngi jaale ñi ci faatu di mas mastawu ñëpp jërëjëf di ñaanal yàlla na fi géej amiin allah yéen tamit kontaan nañu ndax Youssou Ndour tamit di ñaanal ñooy Youssou Ndour waaw ndax Youssou Ndour ku baax la man de wax dëgg yàlla lii muy def yàlla na jëm ca kanam yàgg sa taxawaay fii kontaan nañu ci yen yàlla